ngeen jëf mbokku internet yi ni leen ko waxee woon ñi ngi fii ci jannatu maxwa kër Serigne Saliou ndigal cuun bu nu ko mënee wax ki ngeen jàkkaar lool nag euh, mooy Bijou Bijou Ndiaye bu 2 bi moom xam ngeen ne euh, Bijou Ngoné moom xam ngeen ne moo wàllu baas bi décoration bi sono bi et vraiment mu yaayoo remerciement ndax ku fi ñëw gis baas bi nii mu mel ak ni ñuy déggee sono bi loolu du lu yomb ma sœur ci dernier réglage yi. waaw ñu ngi si dernier réglage yi di nuyu bu baax di nuyu sa mbokk internet yi ñu ngi si dernier réglage bi comme tu vois lépp yem na sax parce que xam nga matinal bi heure ndekki bi sëñ bi bu génnee war a duggaat ñuy defaat leneen encore pour yoor yoor guddi gi ak nii mais liggéey bi ndax yomboon waaw mu àggal léegi liggéey la benn mais booy liggéeyal sëriñ bi day da que liggéey def doy donc du coup doo ci def rek lépp da koy def ak bànneex li ñuy jaaxal mooy xam-xam bi fu mu jugee ndax biisu jàppoon nañ ne toog yor micro rek ci écran bi di wax la ma ne mais décoration bi nii mu mel ak ni ñu gisee baas bi loolu moo jaaxal mbokk internet. lii laa jàng de man. Ah ah. si lii laa am sama doctorat. Eh loolu nag bokk yi dañ ko war a xam. xam nañ ko feneen. Ah, ah. ah. ci concert yi rek ngeen di gis. waaw parce que loolu la gis ñoom saa yër mais nag lii mooy sama domaine. te yaa ngi koy gis ci concert Wally noonu lay demee aussi ci mais ñu ngi ci yor yooru màggal gi nga xam ne sëriñ bi heure bi sëñ Saliou heure bi la ñu waxoon ne mooy dëgg-dëggi màggal. waaw heure bi da nga koy gis sax moo tax nga gis activité yi ci ëpp janatu heure la parce que tàmmoon nañ ko bu njëkk ba dañ daan benn di ko yóbbu ba yàgg ñu koy def fii ni mbooloo mi duñu si fekk si donc commencé dàq nag yi par étape parce que ñun ni lépp Serigne Saliou moo ñu ko te moo ñu ci jox moom la ñuy topp rek sëñ bi da doon def rek def li mu doon def mais dañuy def kéem lu ñu mën rek pour jéem a dabu daal gis ne fii mbooloo mu takku macha allah dinañ fi nekk ci guddi gi ndax dina yomb ak presse bi liggéey bu ngoonee Euh, waaw parce que espace yëpp espace yëpp prévoir nañ ko ci installation yi boo gisee podium bi pour kuréelu xasaayit bi la gis nga sën bi fi mu toog pour rek jéem a def distanciation yi jéem a respecter mesures barrières yi ñu wax mais xam nga nag Touba day xaw a métti takk masque tout le temps tàngaay bi nangam takkuma takkoo donc c' est compliqué ah dañuy day ñaan daal mu dimbali ñu màggal ci jàmm ñëpp kon du la teelu yàgg ndax yaa ngi ci liggéey bi mais lan lan fi mën a xaar ngoon sant Serigne Touba rek waaw sant Serigne Touba rek rien de spécial ma merci beaucoup waagaan ni leen ko waxee waa yéen ngi fii ci jànnatu Mahwa bisu ngeen doon am moo yor décoration basse bi sono bi et tout vraiment gis na mu mucc ay macha allah kon waagaan ñu xoolal leen keneen.